gën a suscité li nga xamante ni moom moo di ay inform ay ay ay discussion wala ay ay ay ay post wala ay riposte ci loolee nga xamante ni moom moo di euh, toile bi alors Sadio Mané mi ngi nii comme ni ñu ko gisee ci image bi Ballon d'Or 2022 Sadio Mané deuxième alors lii nag nekk une très grande fierté pour les Sénégalais ba waral euh, ñu ci bëri daal di nañuy jug ñoom itam euh, daal di souhaiter wala féliciter ki nga xamante ni moom moo di Sadio Mané ci distinction bu rëy boobu nga xamante moomule euh, am na ko ki ci jiitu di suñoo njiitum réew ki Sall moom euh, ba tey ci compte Twitter am ni ngi koy wax ni félicitations euh, Sadio Mané pour sa deuxième place au Ballon d'Or une performance jamais réalisée par un Africain depuis le sacre de George Weah Off en 1995, le Sénégal est fier et honoré euh, d'avoir une légende du football qui réalise chaque jour des performances exceptionnelles. gis nañu itam euh, le président du mouvement Gëm sa bopp moom itam euh, sur sa page Facebook mi ngi wax ni le prix Socrate décerné à Sadio Mané confirme son choix de l'excellence et sa générosité merci beaucoup à Sadio Mané wax ni itam lii c'est du made in Sénégal fàttali aussi ñi ñuy seetaan que Sadio Mané dafa am benn prix boo xamante ni euh, ñu ngi koy woowee le prix euh, Socrate boobu le prix nag li tax mu am ko mooy action sociale yi nga xamante ni euh, mu ngi koy def ci dëkkam comme quoi que Sadio ne cessera jamais de nous ravir ñun ñi nga xamante ni ñoon ñoo di Sénégalais yi gis nañu titre bi nga xamante ni moom la ci Sénégal xëy def tey mu ngi nii Sadio Mané remporte le prix Socrate pour tout ce qu'il a pour tout ce qu'il du moins en dehors du euh, football vraiment euh, euh, tey Sénégal am na ndam gis nañu ni nga xamante ne noonu la ko ñëpp ñëpp ñëpp félicité je pense que pour ne citer que quelques-uns aussi gis nañu Youssou Ndour lui encore une fois daal dinay magnifié waat bu baax li nga xamante ni moom moo di mbégteem ci Sadio Mané mu ngi naan au oh Sadio quelle fierté tu viens de montrer encore une fois que seul le travail paye alors yii nag yenn la rek yoo xamante ni euh, jël nañ ko pour euh, peut-être partager ko ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan mais li ñu ci mën a jàpp rek mooy aujourd'hui quand même mbégte wu sénégalais yi yaatu na bu baax a baax a baax en tout cas ñun ñu ngi koy souhaiter un très bon vent à Sadio bu ñu jógee foofu ba tey on va parler de l'affaire euh, Adji Thiaré Diaw moo nekkoon xale bu jigéen boobu nga xamante ni moo Kaliphone dañu fay sekkoon ay yëf ba mu mujjee ci wàllum yoon moom moomu la di Adji Thiaré nag génn na foofu ñu ko doon euh, suivre euh, ba tàmbali def ay live wala ay vidéo ci li nga xamante ni moom moo di Instagram am ci benn vidéo nag boo xamante ni euh, Adji ba tey def na ko euh, ci Instagram am ñu ci bëri ñi ngi wax ni dafa mel ni euh, àndatul ak xelam à 100 pour cent waaye moom itam génn na dénoncé li nga xamante ni moom moo ko naqari moom moomu la di Adji Thiaré ndax ci Instagram am mi ngi xam le ni un pays u la population insulte la victime un pays où la population défend l'agresseur un pays pays où la population insulte la victime, un pays où être victime de viol est mal vu, un pays où les forces de l'ordre soutiennent l'agresseur, un pays où les femmes n'ont pas de voix, un pays où ce sont les hommes qui dictent la loi. Ce pays est le Sénégal. Ce pays me dégoûte. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus sénégalaise. Un pays qui se dit musulman mais kii ne connaît pas la justice lii bokk na ci post yi nga xamante ni moom la lu gën a partagé ci loolee nga xamante ni moom moo di euh, réseaux sociaux en plus vidéo boo xamante ni moom moomu la di aji caare def na ko ba tey ci benn live bu mu doon amal Instagram la vidéo est def très virale sous peu de temps nañ dem ñu seetaanandoo ko bu ko defee on se retrouve tout juste après sa les gens m'insultent, ils font tout ce qu'ils veulent, comme si je n'ai pas le droit de vivre. J'en pouvais plus, vraiment, j'en pouvais plus, j'ai craqué. J'ai subi trop de trucs durs, ils m'ont mis dans un hôpital psychiatrique, ils m'ont frappé, ils m'ont mis dans une prison, j'avais mes règles, ils m'ont mis des injections, je suis devenue un robot, je ne pouvais plus parler. Voilà, j'ai lutté. C'est Dieu vraiment qui m'a aidé et qui m'a sauvé parce que J'étais pas une personne forte, j'allais craquer, j'allais me suicider, j'allais en finir parce que j'ai vécu énormément de pression. On dirait chez le président de la République. Et ça continue. Voilà, même quand j'étais à l'aéroport, c'est pareil, les gens continuent à me harceler. Mais vous êtes qui, alors voilà lii nag euh, ñun ñoo ko gisandoo vidéo la boo xamante ni aji caare daal dina ci wax li nga xamante ni moom moo ko naqari suite bi mën ngeen ko euh, retrouver ba tey ci page Instagram mais liñ ci mën a jàpp rek mooy euh, jamono ji bile live mu ngi def un tollé bu mag a mag ci page yooyu nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Instagram yeeg ci Facebook bi dañuy dem xooli actualité internationale tey daal dinañuy xëy wax ni dëkk boobu la di Ukraine daal dinañ leen leen di privé de gaz et d'électricité loole nag bokk itam ci pub yi nga xamante ni daal dinañu koy riposte bu baax a baax foofu nga xamante ni euh, moom moo di euh, Twitter comme ni ñu ko gisee nii rek ci euh, bile texte nga xamante ni ba tey Sénégal moom moo ko daal di partagé via le site lemonde.fr nee nañ l'Ukraine privée d'eau et d'électricité après des frappes russes lii nag bokk daanaka ci information yi nga xamante ni moom la ñu gën a reprendre ba tey ci euh, toile bi mu di Ukraine ni nga xamante ni euh, noonu la ñu euh, commencé ñoom nekk ci ay jafe-jafe loolu day nag dara waralu ko lu dul Russie daf leen daal di frappé waat frappé yenn ci ay dëkk ci 24 heures yu mujj yi te frappé na lu tolloog 35 localités ces vingt quatre heures utiliser lu ci mel ne ay missiles utiliser itam ay missiles anti aériens ak ay missiles yoo xamante ni c'est pour l'aviation ak ay drone mu nekk nag loo xamante ni vraiment ñi ñu ngi koy eh, naqarlu bu baax a baax ci réseaux sociaux yi ndax eh, lu dul eh, jàmm comme d'aucuns sont son train de le dire jàmm moom moo ko gën drame peut-être am na fële ca Ukraine mais drame itam am na fii ci Sénégal mu di am ndaw su jigéen soo xamante ni dafa ñaan borom këram baat ba mu ko ñaanee baat nag Euh, dajale ay bagage am desul lu dul génn kër gi borom kër gi daal di koy dóor loole nga xamante ni moom moo di balu bopp ba mu mujjee cee euh, ñàkk euh, bakkanam alors lii nag nekk na vraiment jamono ji ñu toll ci page yi nga xamante ni moo ëmb jigéen ñi wala kuréel yi nga xamante ni ñoo ñoo ëmb jigéen ñi di susciter beaucoup de débats di alimenter ay discussions yu bëree bari parce que les femmes ne parviennent toujours pas à comprendre naka la góor ne rey nit ci bëgg naa la euh, bëggatuma la groupe boobu euh, mel ni euh, femme chic par exemple moom Mamiko bokk ci administratrice yi mi ngi wax ni une balle en pleine tête pour avoir divorcé le le pour avoir demandé le divorce quel cauchemar alors lii nag vraiment on espère que dina fi yem et que yoon dina def lépp li nga xamante ni moom moo ci war ba ñu mën a euh, situer loolee nga xamante ni euh, moom moo di les responsabilités arrêt image bu tey euh, dañuy dem wan leen figure politique boobu nga xamante ni moom moo di Mame Diarra Fam alors Mame jaara Fam nag dafa am benn page bu tudd buzz boo xamante ni dañ jël ñaari image am monté ko ci kaw image bi ñu wax ni soo koy doxaan nii lay mel soo ko takkee nii lay mel ñeneen sax dem bay wax ni euh, ce que tu commandes et ce qu'on livre lii nag vraiment ñu ngi koy riposte bu baax a baax ci euh, statut yi comme quoi que sunu yaay ji euh, maam Diarra Fam moom dafa xew bu baax a baax a baax waaye internet yi aussi ils sont pas trop gentils parce que pour la plupart du temps dañuy def ay blagues yoo xamante ni ñeneen ñi dañuy jàpp ne c'est rigolo mais ñeneen ñi dañuy jàpp ne vraiment c'est pas du tout drôle en tout cas nous ça nous a ñu ngi koy nuyu bu baax a baax suñu yaay joojee nga xamante ni. Euh, moom moo di euh, Mame Diarra Fam parlons de fake news étant donné qu'on parle toujours euh, de internet aujourd'hui dans la rubrique fake news on va parler de la musique et surtout du groupe Pape et Cheikh dafa am benn site internet boo xamante ni Sénégal rek la tudd ñoom Euh, dañoo daal di euh, euh, bind benn post di wax ni ki nga xamante ni moom moo di Pape et Cheikh seen groupe bi am na ci koo xamante ni ci ñoom ñaar dafa feebar ba sonn ba daal di nañuy lancer sax benn cagnotte pour jàppale ko mu daal di jug ci feebaram boobu noonee nag la groupe bi nga xamante ni ñoom ñoo di Pape et Cheikh ci seen compte Facebook officiel ñu dem ci commentaire post bi. daal di fay indi ab yi euh, démenti bi nag mu ngi nii xanaa rek bu ngeen ñu ko mënee yaatalal ñu mën ko partagé ba tey ak euh, téléspectateurs yi ndax Pape et ñoom am nañ lu leen naqari bu baax a baax ñu ngi wax nii kii véhiculer yooyu la information waxul dëgg et que ñoom dara jotu leen ñu ngi continuer seen liggéey normalement euh, lépp loo xamante ni ñu ngi ko war a am ñu ngi koy am ñu ngi sant yàlla bu baax a baax et que bés bu ñu identifier ki nga xamante ni moo nekk di véhiculer yooyu les rumeurs euh, fi ñuy mujj ak moom du neex comme quoi que bu demee ba internet dañuy tàggee ay nit bu demee ba internet dañuy créer nit ay vie bu demee ba internet dañuy euh, feebarloo nit te dara jotu ko quand même je pense qu'il y a urgence à que ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk à que ñuy protéger les données personnelles ñu jël ci ay mesures le plus euh, rapidement euh, possible ñu ngi ñaanal un très bon vent au groupe Pape et Cheikh et vraiment une meilleure santé euh, dara bañ leen jot ba tey ci même mouvance bi dama bëgg ñu dem xool yi defati koy tey nag du ma leen wax dara video bi ñoo koy seetaanandoo bu ñu visee commenté ndoo ko sabab lii nag euh, benn usine la bu nekk fële ca Thiaroye Azur pour ne pas euh, le nom de l'usine dañuy euh, transporter li nga xamante ni moom moo di soble bi ñu fay defar alors machines yi dafa sonal lool ñi nga xamante ni ñoom ñoo di riverains yi te yamul foofu rek ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di riverains yi on espère que les autorités de tutelle dinañ ci jël ay mesures ci nu mu gën a gaawee yii les genre dafay tax ñun ñëpp ñu jàng ci parce que ñu mën a defaraat suñuy jikko pour ñu mën a vivre comme il le faut en société saa yi ñu yegsee fii itam dafay baax ñuy dem xool yi li nga xamante ni moom moo di la revue de presse digitale bu ko defee Mbaye Karim dëgtal leen internet bi li fa gën a neex dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci yéen kaay bés bi jëm ci wàllu internet bi TikTok WhatsApp Telegram Facebook Instagram Twitter dañu koy dooree ak li gën a fës ci toile bi Sadio Mané doomu Bambal léegi tubaarkàlla ñu ne ko gàcce ngalaama moom jël na deuxième ballon d'or ma ko du chance mérite la Sadio Mané jàmbaax la ci page Twitter bu son excellence président Macky Sall nag ma ngay sargal Sadio Mané ko nag euh, tu es le meilleur jàmbaar nga te it nag ci terrain bi moom amoo fa caaxaan te it nag ku gëm sa bopp nga lépp rek ngi ngi ci biir euh, Twitter bi euh, ci page Facebook gu Youssou Ma jigéen Ndour euh, moom it nag nee na Sadio wane te nga ni ku liggéey rek jariñu te it nag jàmbaar nga gaynde nga te référence nga te it nag missionnaire nga Ma jigéen Ndour moom it maa ngi koy sargal ubbil Facebook gannaaw bi mu dooree tournée pour nemmeeku moom Ousmane Sonko nag ba mu eggee ca Malicounda kilifa yi bi ñu jëlee kaddu notable yi dañ ko xamal ni ko kenn fi ne kenn nu bëgg kenn moo ñuy jàppale moom Malicounda kooku nag moom mooy Maguette Sène directeur université Cheikh Anta ku ndaax moomam dëkk bi te nag ku ne xam na ni uh, ko am fii uh, yi ñoo ko wax El Hadj Maodo Mass Diop nag ci biir TikTok bi nee na ku ne xam na ni am na sañ-sañu dem seeti ay militant te nag kenn mënut a téye Ousmane Sonko dem seeti ay militant te nag bi muy ñëw Malicounda su ma ko yëgoon man ca ne koy textu ca laa bokk El Hadj ne bu taal réew mi ci TikTok Seneweb la ñuy desandi Lamine Samba ne du ma démissionné TFM te kenn dàqu ma am na benn combat Balla Gaye 2 boo xam ne Pape Cheikh Diallo ak DJ Boubou Saloum jox ñu def direct bi te man mi ku ne xam na ni maay borom làmb te lu ci baree bari ci combat boobu lee man maa ko piloté ah Malick Thiandoum moom ñuy wax Malick Thiandoum suma meilleur ami la te it nag man munumaa soxore Malick Thiandoum euh, soxore ki ñaan nekk sa biir xol maa nga ca làmb ja lag de ci biir TikTok bi nee na Boy ñaar est-ce que bëreetu Balla Gaye 2 attan na ko ah est-ce que Boy Niang attan na bëreetu Balla Gaye 2 kon Lac de Guiers pose benn question ce que it Boy Niang du soxla bëreetu Balla Gaye 2 ab laaj la bu laa déggee samp ci biir TikTok bi na fi jëy <laughs> ba suba ak jàmm léegi gën a fas yéene dafa mel ni ñoo ko gisandoo li gën fës ci internet bi par le biais de la revue de presse digitale c'est Sadio Mané encore saajo Mané et toujours Sadio Mané dañuy jéggi frontière dem fële ca France euh, une jeune dame aussi euh, nous a donné son coup de gueule du jour dans la rubrique euh, kaddu diaspora bi. non Sénégal courant bu nekkee dix nga gis ñu ne la vingt mille la hmm? ordonnance bu nekkee quinze mille nga gis ñu ne la trente mille la koo xamante ne buy fayit yow yaa tax sa doom wala sa mag la wala sa rakk la buy li muy def yow yaa tax sacrifice yi muy dund Europe yow yaa tax yow ci kaw loolu nga koy teg dil di ko sonal yónneel gauche yónneel droite il est écrit nulle part que danga war a di dundal sa frère ak sa sœur mais dañ koy def parce que xëy na suñu culture la suñu tradition loolu lañ xam mais ki lay jàppale tamit da koy jàppale te tamit da ngay nangu jàppale sa bopp mais mu ngi Europe rek moom la ñuy wekk lépp non débrouillez-vous aussi dee leen woote sans demander dafa neex ki yëkkati téléphone yaa ngi ci jàmm naka lii naka naa mais su ngeen wootee rek derrière cinq minutes après li tax mu ngi ñëw facture bi ah nii de nee nee kii dañ ko ngénte suba de accouché naa de sama jabar lii sama jabar laa mais come on arrêtez ça déggandoo diaspora bi ñoom itam ci la ñuy bokk dafay baax à chaque fois ñuy déglu li nga xamante ni moom moo leen neex wala moom moo leen naqari yéen itam ñi nga xamante ni ñooy la ñuy seetaan nekk un peu partout dans la diaspora képp koo xamante ni rek am nga ci loo xamante ni bëgg nga ko jàllale euh, via fa nga dëkk wala ci réseaux sociaux yi lu la ci neexul mën nga ñu ko yónnee bu ko defee on va le partager avec les téléspectateurs l'émission tire à sa fin et à chaque fois du ñu dem mu côté dégtaluñ leen li nga xamante ni moom moo di la blague du aujourd'hui nag benn couple boo xamante ni dañuy ñaan dañu seetaan <laughs> li ñuy ñaan fan lay mujjee. laay tàllal sa loxo tey wax amin bismillah yàlla maa lay ñaan yow mi nga xam ne yaa mën yow mi nga xam ne yaay maye hmm. yow mi nga xam ne yaa ñu sàkk nga mosal ñu ci seytaane mosal ñu ci cat mosal ñu ci jëf ci pon yàlla sama biir xol laa tëbba mhm. mooy ñi nga xam ne dañuy mbubboo séminaire di tappale di caaxaan di def na ko su dul noonu di di nax seeni jabar guddeeg bëccëg di la ñaan yàlla suñu borom yow miy maye yow mi nga xam ne yaa ñu sàkk yàlla yow mi nga xam ne yaa ñu sàkk bëpp góor bu nekk ci mbedd mi di nax xale yi am seen xaalis di utiliser xale yi si seen xaalis bu ñuy yor. yow mi nga xam ne dara tëwul. sa ñaan nga nga nga changer seen. xaalis seen <coughs> yàlla damaa bëgg nga weer leen bëccëgu ndar kàmm. bëccëgu ndar kàmm ñépp teg seen bët li ñuy def ba pare nag caw leen caw. ba seen tay taylu gi ñu nekkee ñu bàyyi ko. soxor ko ñaan bi moom euh, lu ni mel dina dinaa ko mës a fekke ci diggante Leyti Ndiaye ak jabaram wala ci diggante MD ak jabaram maam Sidi sax tane na léegi parce que dafa upgrade mais moytu leen di tàggu seen jabar yi ay séminaire alors que yéen a ngi autre part day tax du ngeen mucc ci xeetu ñaan alors en tout cas nous sa nous a fait marrer on espère que vous aussi fii laay jaaree jox leen dig daje suba incha allah même heure même fréquence di ngeen am Iran Ndaw léegi léegi euh, bu jàllee euh, l'équipe de Sen Show euh, danañu ñëw mais d'ici là restez scotchés pour la bonne suite de nos programmes